am jafe-jafe courant bi wàññeeku na. Mm-hmm. dégg naa ci rajo. Mm-hmm. notamment la RFM syndicalistes yi fa nekk. Mm-hmm. yëkkati seen kàddu wax ne ñi ngi jëm ci jafe-jafe yu doy waar ndax bor yoo xam ne amel nañ ko Senelec. ba mën nañu jëmaat ci ay délestage. loolu nga xam ni mi ngi jibaat nara ni ko fàttaliku si cause bu doy ci xelu askan wi. est-ce que xalaat ngeen loolu yan matuwaay ngeen ci jël bala ñu fay egg lu toll ci deux cent milliards ci ay bor yoo xam ne état bi ak collectivités locales yi amel nañ ko kër googu di Senelec. waaw loolu dinaa la ci tontu parce que xam nga nit ku nekk dafa am loo ko xam da koy xam te bu ko xamee bu koy wax day yomb gis nga problème Senelec euh, problème bi ñu amoon ci lekk muy problème bu rëy moo doon dañu demoon ba li nga xamee ni muy usines yi togg courant mm-hmm. liñ daan togg dafa doyul xam nga loolu kenn waxatu ko mm-hmm. dafa am lu rëy lu xew ci réew mi mooy pétrole bi nga xamee ni nii ci la ñuy toggee courant mm-hmm. quatre-vingt pour cent suñu courant ci pétrole lañ koy toggee. Mhm. dafa doon jar à peu près trente dollars ci weer yële. léegi pétrole bi egsi na ba quatre-vingts dollars. Mhm. président de la république wax ni jafe-jafe yi réew mi di jànkonteel tax na bëgguma ñu yokk prix essence bi. Mhm. bëgguma ñu yokk prix gasoil bi. parce que ba muy jar 30 dollars si wàññi na parce que déglul ma wax la xam nga pétrole ak essence bi ngi nekkoon 800 francs Pape. xam nga pap yow yaa ngi ci réew bi li fi xew xam nga ko demoon na ba 800 francs président moo ko indi mu nekk 590 ak 690. loolu kañ la ko def li may wax xam nga ko kañ la ko def loolu. il a 3 ans def na ko déglu moo wax la. maa ngi lay déglu ñu ñuy wëlbatiku courant bi nga xam ne kenn mësu ko wàññi ci senegal mu wàññi ko. kon nag kooku yërëm askan wi. xam ni itam bu fekkee ni condition marché bi. dafa changé loolu dara gënu ko logique. defal naa bu bari lu pétrole di jar trente dollars. kay wax dëgg yàlla mu war ko wàññi. defal naa ko wax la. waaw xam nga wàññi na ko. Mhm. tey li nga wax mooy bu ñu ko yokkee. pétrole bi léegi ñu multiplier ko par deux virgule cinq. yokk ko kenn waru ko xalaat. parce que ba muy tuuti kenn wàññiwu ko. waa déglu ma déet daf ko wàññi. wax naa la léegi nii la pétrole bi dafa nekkoon dama lay wax ni la. Mhm. ba litre essence dem na fii yow nga koy jënd huit cent francs mhm. léegi président indi ko 690 litre gasoil dem na fi ba nekk 700 francs di jar moyen Mali déglu rek di jar di jar moyen Mali. non non lu gën a tuuti. tout le temps nga di ko dégg loolu système taxe la. waaw système taxation la xam nga ñun li li suñu. réew bot boobu. waa déglu li suñu réew boot waaw ci wàllu budget xam nga budget suñu budget fan lay jóge mhm. ci ay taxes lay jógee lu ci ëpp. moo taxit vote assemblée nationale di voté ay taxes rek. muy ci muy ci pétrole bi. muy ci cigarette bi. muy ci tout le temps. taxes yi te loolu aussi nekk ay jafe-jafe yoo xam ne askan bi rek ngeen koy teg. non non pour jàppale gouvernement bi ci seen budget. non non xam nga. waaw bu ñu toogee ba yàgg. non mm-hmm. yaa wax taxation bi rek ma wax la ko déglu la du ñu toog ñaari fan ñett te waxuñu voté eh, bu ñu def euh, ci loi yokku taxi nang taxe nangam taxe nangam taxe nangam dinaa la leeralal voilà xam nga bu ñu demee di def loi rectificative de finances seet loo xamee ni président daf ko jël ni man étudiant yi nga xamee dañ nekk Sénégal dama bëgg yokk seen bourse mm-hmm. dama bëgg wàññi li nga xamee moom la ñuy daan jënde añ ak reer ak ndékki mm-hmm. mais xaalis kenn du ko inventé dafa am foo koy jëlee su président jëlee disposition yu meloon ak yeneen ci wàllu ji nga xamee ni nii ñoo doon revendiquer ci wàllu indemnité de logement yi nga xamee moom la ñu waroon jox enseignant yi. loolu créé woo benn solution. waaw defal naa ko jël fii. ci loxo ndijoor bi def ko ci loxo càmmoñ bi mais xaalis kenn du ko inventé. waaw kenn du ko inventé mais dinañ non kenn du ko inventé. Hmm. mais aussi gouvernement prévoir la. bu fekkonte ni problème mu fàllu seen deewul tey. Mm-hmm. ci anam yi mu deewee président du yokkal dara étudiants yi naru ko woon kon bu fekkente ni loolu am na loolu mooy jafe-jafe yi nag mooy taf yëngal bi ñuy wax ci seen gouvernement. non non Pape dama bëggoon ñu serein parce que deewu nit dafa am solo xam nga tey soo bëggee wax ni président dafa wàññi li mu jox étudiants yi parce que nit dafa gaañu dafay indi beneen problème. da yaakaar loolu amul. dama déedéet. wax loolu itam man li ma gëm. léegi d'accord naa ak yow ci deewu nit dafa am solo. baal ma rek d'accord naa ak am mm-hmm. solo. bi mu deewee ba léegi. bi mu mm-hmm. faatoo ba léegi. Mm-hmm. nu ñu wax ni kii moo ko rey. mais te bokk na ci liy seral ay yaxam. ñu xam kan moo ko rey ñu ko war a teg ñu teg ko ko. te anam yi war a mën a tax ñu xam ko dafa gaaw non parce que weddi gis bokku ci dégg nañ fi légitime défense. lankin dégg nañ fi ñu ne ki yoroon fital bi moo sommé après moo tiré. xam donc lu ñu fàng kenn ko jeex. non xam nga man Pape dama bëgg nga déglu ma. d' parce que li tax ma bëgg nga déglu ma. d' accord mooy xam nga réew. Mhm. dafay tegu ci ay charte. d' accord ku nekk am nga loo war a def. d' accord bu fekkee nit dañ ko boom. Mhm. dañu am ñoo xamee ni ñoom ñoom moom enquête ba. Ah. di ko doxal mais aussi député yi sañ nañ ci def commission d' enquête parlementaire. pour gaaw leer dafa jotagul. sañ ngeen ko war ngeen ko a def waaw ah, d' accord d' accord bu fekkoon dañu demoon ba mu lënt. Mhm. mais comme ñun wóolu nañu. xam nga li suñu différence mooy la. Mhm. man dama gëm ni Sénégal institution yi mu yor yëpp mi ngi dox. Mhm. gouvernement bi mi ngi liggéey. président mi ngi jiite. justice mi ngi dox. parlement bi mi ngi dox institution yëpp mi ngi dox. ku ci nekk cëram da nga koy bàyyeeg moom. d'accord mu doxal. d'accord léegi nag bu ñu demoon tey. Mhm. ba mu jéggi ay dayo wala ñu dem ci jamono boo xam ne danga nga naan mais lii kat doy na waar parce que ñaari at a ngi nii ñu koy topp te gisuñu ci benn résultat bu boobaa mën nga wax député rek mën na jël. moom décision. waxtaan ak ay nitam ne lii war nañ ci def benn commission d' enquête pour ñu laaj fan la toll. ak fan la toll. Mhm. d' ailleurs commission d' mhm. li ma lay bëgg a wax mooy lépp loo xamee ne nii ñu ngi koy jeex mu nekk justice fii mi ngi nekk justice. Mhm. commission d' enquête ci niveau parlement bi mënoo ko def. d' accord président ñu dellu ci taxi am na loo ci doon wax. waa taxi